man la El Keita di ñëw nak di leen wax ni dañu am événement bu mak inshallah muy le 24 décembre El Keita au Grand Théâtre El Keita avec qui avec Dakar Actu Dakar Actu mi nga xamni machallah yag na jappalé El Keita depuis ses débuts motax fa euh, foo ma delloo leen jukal ci bëss bobu le 24 décembre. lu jot yomb ah, lu jot sa borom def ko ah jot rek ñu war fa dem lolu képp la dafa jot ñu fa dem ah, ba pare mu tombel nag bespinga bi nga nendan am chaque at ci UCS bi 11 le 24 décembre kon manam euh, kuy kuy mil na mbaal date bi miin nañ ko yàgg nañ ko kon sunu date la kon macha allah dem def comme niñ ko daan defee ci bi mais day différent parce que c'est une salle boo xam ni macha allah. musicalement ni ma koy waajee moo incha allah dinañ gis euh, dinañ dégg musique dinañ gis spectacle parce que ñun yàgg nañ defe spectacle yàgg nañu euh, euh, dund loolu ci sunu soirée yi sunu soirée yëpp dañ daan defee spectacle mais bii dañ ko war a fësal waaw bii moom bañu ma ci mere bañu ma ci mere mooy incha allah di ngeen dégg way di ngeen dégg spectacle di ngeen gis spectacle bu leer nañ ba ñu ma ci waaw parce que seen bu neex laa bëgg maanaam gars yi liggéey nañ loo xam ne macha allah buñ ko gisee dañ xam ne kii liggéeykat la. sunu papa yi invité nañ papa Youssou Ndour nañ papa Bam Mal invité nañ papa papa euh, euh, Thione Seck invité nañ euh, sunu sunu sunu mag yi ñoom Waly invité nañ Pape Diouf invité nañ euh, euh, fallu Dieng invité naa Alim Mbaye Nder invité naa artistes yi yëpp ba ci sama génération suma papa nag Mbaye Guèye Faye moom sama moom sama moom sama lépp la ñoom ñoom xam nañ El Hadj Keita ak Mbaye Guèye Faye moo tax moom du ma su ma su ma ko tuddul sax moom xam na noonu la demee ak ak ak sunu sunu sunu sunu génération ñi nga xam ni ñoo bokk génération invité naa ñëpp sama xarit yëpp ñoom xam nañ seen bopp. di jiital monsieur le maire Bamba Fall di woo Pape Abdoulaye Seck di woo Cheikh Ba euh, di woo euh, Seydou Gueye di woo euh, Birane Ndour di woo Maymouna Ndoye Seck di woo Ndeye Seynabou Ndour di woo képp ki nga xam ni yàgg na jàppale El Hadj di wo paté ndoy ba ak yousou dial ñi nga xamni yag nañ jappalé elage keta di wo international yi nek medina yépp di wo amat di wo ah, ah, jafara saxo di wo pam matar di wo ah, baba jawara di wo nak sama xarit bi hamni xamni mak mom yag nañu té té lu té yag deug la muy fallu jañ fallu jañ siray sa yaay mami gay yow xam nga ni bëss bi dang <laughs> di woo Sénégal pour di jox rendez-vous le 24 décembre inshallah, au Grand Théâtre dina metti dina tang Bye bye bye bye